May koyiti ci dafa sambara aw danoo fanaane napp ba fajar jàpp ñu dara di metti na ayo ay ay dem ñu géej mool ne ayo ay mu dem ñu géej mool ba di bëgg a géej yëpp géej fen tere mu gis lu mu baax a baax ci internet Allo Dakar TV di leen nuyu tasaare nuyoo bi fépp fu mën di féete ci àdduna wërngal képp tey nag nee naa ci doxantu dañu wàcc fi nga xamante ne mooy quai de pêche bu Yoff fekk fi ñi nga xamante ne ñoo nekk ñiy gérer kii bi wala fekk si fi ñi ki nga xamante ne mooy mbay si ak équipe am dañu bëgg rek waxtaan ak moom tàllal ko suñu micro gannaaw ba ñu ko nuyoo bu baax ba pare mu wax ñu liggéey bi fii naka la demee est-ce que liggéey bi mu ngi dox fii jafe-jafe yi nga xamante mu ngi koy jànkonte yi tamit euh, mu ngi koy am ci liggéey bi nga xamante moom la nekk di liggéey waaye loolu yëpp ñun danoo xamul dañuy tàllal suñu micro daal koy déglu yéen tamit ngeen daal di y a pas mal de produits yoo xamante ne ñoo si fruit de mer boo jokkool ki nga xamante ni mooy mbay si dànk am kon mbay si dañ lay bàyyi rek nga daal di nuyoo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. soxna si na nga def ñaa lay nuyu di la ziar. di nuyu waa Sénégal yëpp. waa tey ñu ngi leen di dalal fii ci poissonnerie waa Kër Maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nga xam ni ñoo ngi jaay bépp espèce su ak bépp fruit de mer fii ci quai de pêche Yoff Tongor dégg nga ni mu ko waxee bépp fruit de mer la jaay. gannaaw loolu bañ la nuyoo ba pare dañ lay bàyyi nga présenté li nga xamante ni mooy produit yi fi am. waaw fii am na produit fruit de mer yëpp am na ay coof ay dorade ay crevette ay camaron bépp xeetu jën boo soxla rek boo ñëwee fii ci poissonnerie waa Kër Maam Cheikh Ahmed Tidiane ci quai de pêche Yoff Tongoor dinañ la jox jën bi nga bëgg moo xam fruit de mer la moo xam coof on four la moo xam dorade pour grillade la lépp loo soxla daal boo ñu contacter fii ci quai de bi rek boo ñëwee incha allah dina la defal ni nga bëgg incha allah soo bëggee ñu livrer la ko en domicile. ah dañuy def livraison à domicile maanaam mën nga toog fa nga toog jël numéro bi nga xamante ne dinañ la ko wax léegi wala numéro bi nga xamante ne mu ngi jàll noonu ci suuf nga contacter leen ñu defal la livraison à domicile wala nga contacter ne mu ñëw ba fii xool li nga xamante ni macha allah moo ngi file nga daal di tànn li nga bëgg mais laataaloo dama lay laaj nan nga def ba xam produit yi yëpp. waaw xam nga ñun dañoo juddu si jën. màgg si jën am bëgg-bëgg bi. te comme yàlla daa def ñun dañuy liggéey ak ak tubaab yi. ñuy jël jën bu baax bi yëpp di ko yóbbu Europe te suñu doomi réew gën leen ko bëgg ñun ñu leen koy imposer. moo tax ñu karee lii la temps ñu di ko jaay tubaab yeeg hôtel ñu di ko jaay suñu doomi réew fii nii ndax tamit jën dañ ko umpale quoi mais dafa am protéine am vitamine yu bari mais amaana suñ ko xamoon rek dinañ di man di incité ci fruit de mer bi en cent pour cent ndax jën n'importe quelle heure mën nga ko lekk bokkul comme ak viande moo tax tubaab yi gën ñu ko xam Sénégal nag moom lekk fi yàpp moom lañ xam mais Europe moom lekk fa jën mooy fort. Sénégal bu ñu nee noos rek dañ naan ndawal li yàpp ak ginaar ak xeetu ñoom seen waaye yu baax yaa ngi fii boo tukkee ngay xam ne dëggantaan lii am na njëriñ mais mbaa nekkul nit ñi dañu ragal prix bi. no prix bi def nañ ko ay prix yu simple comme suñuy gaal ñoo koy jàpp dañ leen koy gën a yombalal buñ koy jaay tubaab bi téeméer sénégalais bi nga xam ne Sénégal dañ ko koy jaay 300 francs wala 400 francs prix yi noonu lay demee saa mais du affaire prix bi xëy na ñàkk koo xam la rek mais bu ñu ko xamee rek la ñuy dem Kermel am na ñoo xam dañuy jóge fii dëkk cité biyaa gi ay Nord Foire di dem Kermel di paas embouteillage di leen sonal jërëtu ko ñëw leen fii ci quai de pêche Yoff Tongoor poissonnerie waa Kër Maam si Ahmed Tidiane si lépp loo bëgg ci xeetu fruits de mer lépp loo bëgg ci xeetu jën boo ñëwee di nga fekk incha allah rabbi parce que nit ñi dañu dul comprendre man am na pare mun naa ko jël exemple ci man damay dem ba Soumbédioune ma daal di jëndi foofu entre parenthèse waaye désormais ngëneel baa ngi fi te li ci gën a ne mooy fii dafa set macha allah. propre super euh, sanitaire bi fi nekk macha allah boo ñëwee set na da ngay ñëw. mun nga sañ sa ba jekk daal di ñëw jënd sa jënd doo ci tâche doo ci takk loolu nii lii nii nu ngeen def ba fii mel nii. waaw vraiment lii dañ koy sante président Macky Sall ak euh, ay ministre am ku ci mel ne Omar Gueye ak euh, monsieur le maire Abdoulaye Diouf ndax tamit ñooñu defal lii lépp yombalal ñu ko teg jaara ñu ko ci suñu président marier muy Ablaye Seck ak adjoint maire bi fi nekk muy Jabel Mbegere ñooñu yombalal lii lépp la fait que ngay dem feneen boo ñëwee fii defal ñu ko te it ñoom ñi ngi gunge te bàyyiwuñ ndax dañ lay imposer hygiène bi day normal qualité seen baa ngi ci biir boo fi indee jën boo xam ni normalu dañ koy nangu nga ñak kon la fait que da ngay obligé pour di indi jeun bu bees tak lan ngay conseillé ñi nga xamanteni bëgg nañ dugg ci métier bi ngay def. ah man da limay may ñepp ñi ci bëgg dugg rek ñu def étude yi buñ défé étude yi am ci ay geust wut moyen ndax laaj na moy ndax laaj na nga am place bu luxe buñu carolé karole ay salle fi yo xamni fi lañuy filtrer jeun bi bo bëggé filé fofu ngay filé yoy yépp mi ngi ci biir quai de bi amna débarquement loo ëpp loo soxla daal ci xeetu jën moom boo ñëwee fii ci quai de pêche Yoff Tongoor incha allah di ko fekk. lan mooy problème yi nga xamante ni yaa koy jànkonteel fii. waaw problème yi rek mooy xanaa des fois ay problème mu moyen ndax xam nga fruit de mer dafay jël xaalis des fois loolu rek mooy poser problème mais bu loolu moom vraiment am nañ ay gaal ñu ñu koy wutali macha allah di ko andil macha allah vraiment. waaw lan mooy euh, li nga xamante ni mooy avantage ngëneel yi nga xamante ni moom fi yaa yaa ngi ci yëg sa bopp. waaw ngëneel yi moom bari na ndax dañ nit nitam mooy garabam te vraiment am naa ci nit yoo xam ne vraiment lu ne ñi ma koy jariñ lu ne ñi ma koy service te ñi ngi may boole ay nit yu bëree bëree bëri da ngay dem ba xoolal yu bëri ay nit a la koy defal te malgré li leen xamante mooy jaayum jën ak jënd jën rek kon avantage bi loolu rek moo ci gën a nekk avantage xam ci nit rek mu nga am problème mu feebar wala nga am problème mu leneen mu xam ni loolu domaine am la mu ñëw jàppale la ci jën bi nga koy jaay kon avantage boobu rek jar na jaay jën waxuma la sans bénéfice nag. lan nga si yokk laataa may wax ak ñi nga xamante parce que dafa mel ni équipe laa fi fekk. waa am na équipe ndax tey boo xoolee kii ci sama ginnaaw mooy Mbaye Guèye fépp fu ñuy livrer jën moom moo fay livrer am na keneen ku ñuy wax am Mohamed. moom daanaka bu dee wàllu jën bi ay giriyaat coof yooyu yëpp moom moo koy def ndax bokkuñu place bu ñu nekk am na ñoo xam ne ñooy def démarches yi ci gaal yéeg yëpp am nañ équipe de travail boo xam ne daal ba ci ki nga xamante ni da ngay da ngay dugal sa statut mu capturer ko envoyé ko keneen kooku ci équipe liggéey bi la bokk te macha allah tey su ma dugalee statut rek muy marier yi nekk ci quai de bi yëpp ak sama ami sama client ak sama clientèle yëpp dañuy capturer waat image bi envoyé waat ko wala ma publier sur Facebook wala Instagram ñu publier waat ko am nañ suñu site YouTube. bu ñuy wax euh, poissonnerie waa Kër Maam Cheikh Ahmed Tidiane Al lépp loo bëgg xam ci xeetu jën lépp loo bëgg a xam ci xeetu fruits de mer boo demee YouTube rek boo fa tàppee poissonnerie waa Kër Maam Cheikh Ahmed Tidiane si rek di nga xes xeetu jën yëpp ñuy ñaan suñu clients ak suñu clientèle yëpp ñu dem abonné foofu pour man di jot image yi nine and day. d'accord et dafay làkk anglais de nine and day <laughs> canta ngërëm ñeel na la mais lan ngay tëjee parce que avant ñuy tëj sax dama dégg sànq mu wax dafa mel ni place bi am na beneen. waaw am na beneen. muy Youssou Thiam Al Medina poissonnerie moom it mi ngi nii si gannaaw ñun ñoo bokk lu ñuy travaillandoo ensemble lu ma manqué moom am na ko lu mu manqué man dama koy am. kon ñun ñooy travaillandoo ensemble après dañuy dem foofu ñoom it ñu présenté leen li ñu am yëpp. incha allah gaal moo nekk nii ñooy gën ci bi ñuy napp yenn ay doraat yeeg ñoom seen. après ñoom suñu terrain rek dañ ko indi ci terrain débarquement bi ñu traité ko lenn li ñu jaay ko tubaab yi léegi nag au lieu que ñu di jaay tubaab yi léegi dañ koy imposer sénégalais yi ndax tamit gënuñ ñoo tubaab yi gënuñ ñoo bëgg lu baax te yàlla defal na fii ci dëkk Seydina Limaamul Mahdi yu moom mi nga xam ne woon moo waxoon aji boo daaya lépp lu waay ñaan yàlla mu nangu moo tax gis nga yii ñooy jàpp yaboy bi nga xamante ne bii ñoo fi ñëw après ndax kenn mënu togg sans am yaboy gaal yi des fois ñuy jàpp rek calamar bi ak euh, ñoom crevettes yi ñoom seen des fois ñu raxaale ay coof ay sol ay filet de lot filet de cabillaud lépp loo bëgg daal boo ñëwee fii ci dëkk Seydina Limaamu bi ci poissonnerie waa Kër Maam si Ahmed Tidiane Al Maktoum dinañ la defar li nga bëgg incha allahu rabi li nga dañ lay bàyyi nga tëj après ñu daal di wax ak ki nga xamante ni moo nekk sur le terrain di livrer. waa dañuy sant yàlla di julli si yonante bi di gërëm sunu ñaari waajur. di ñaanal sunu góor ga Sayid si Ahmed Tidiane si radiyallahu taala hamdu yàlla waaye fal suuf ci kawam ndax tey mën nañ ni képp ku nu jaay jën rek jàppal ne lekk nga ci xaalis Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum ndax xaalis bi ñu départ di ko liggéey fii tey moo nu ko joxoon ci dundam kon nag sant yàlla ñuy ñaanal ñëpp jàmm ban fa jógee dem nañ ci Serigne Mountakha Bachirou Mbacke xalifa général Touba mu defal ñu ci ñaan ñu dem ci sëñ Sidi Abdoulaat mu defal ñu ciy naan kon ñoo ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax ni poissonné Al Maktoum a ngi nii. lépp lu ngeen bëgg ci xeetu fruit de mer xeetu jëndaal bu ngeen fi ñëw incha allah dinañ leen ko defaral ni mu gën a yomb. numéro téléphone bi ñaata. numéro bi 77 523 95 43 wala 77 548 31 76. mën nga commandé par whatsapp wala par facebook wala par instagram wala par email waa mbay si araba gmail point d'accord jox na si itam joxe li nga xamante ni mooy numéro téléphone bi waaye mel na ni boo wootee ci numéro téléphone bi wala nga daal di dugg ci site bi boo commandé sëñ bi moo lay livré sëñ bi na nga def maa ngi sant yàlla bu baax tur bi naka la Mbaye Gueye la Mbaye Mbaye Gueye Mbaye Gueye Mbaye mooy nekk sur le terrain yow yaa nekk sur le terrain liggéey bi naka la mel foofu waaw liggéey na trop nag mais dinañ ko gérer na mu ko war a que ndax lan nit ku nekk ci la ngay liggéey rek ci ngay sonn quoi di bañ client mer souvent parce que kenn dootul déplacé fenn ndax euh, moyen yi mate na ko fu waay nekk ci Ndakaaru daal man incha allah rek boo wooyee boo contacté numéro yi rek man incha allah rek dana la fekk livrer ko à domicile quoi non problème. doo ci am problème. non du ma. est-ce que est-ce que du ma du xam nga fi mun fee ñàkk. Uh-huh. mën nga daje ku mel ni man woote nga ñëw ba foofu indi mu ne la waxuma wala ni ma ko gisee woon di ni demee noonu. li tax du démé nonu moy dan lay fotal filmer filmer la jeun bi wax la poids beeg yëpp nga xol bam doy la nga ni commandé ni indi len ma temps ñu indi la temps yoy bu ko defee doom am benn problème duñ ci jangonté benn problème mom bu ñu indé nga fay. bu ñu indé ñu fay wala ñu duggal ko par Orange monnaie rek sans dépend ñun amuñu problème mu yoy non pour client yi dédét parce que confiance la ñi dundé ak quoi machallah dal kon dal mën na da japp ni dal accueil bi mom c'est nice machallah kon kàddu gu mujj gi wax ñu yow. waaw di leen sant di leen gërëm tamit di ñaan lii tamit mu dem ma dem a dem ba ca kanam a kanam ba dem ci yeneen télé yu magee mag a mag ngeen fa télé yu mag yi egg yéen itam ngeen àgg fa ba ngeen ñëwaat fii incha allah loolu lañ bëgg ci kàttanu yàlla incha allah. macha allah gis nga comme que dañuy jël produit yi rek yi ci gën a baax ñu daal di ko génne dëkk bi waaye ñoom nee nañu dañu bëgg waa dëkk bi lekk ba suur ba pare laataa ñuy yóbbu waaye ndax dañ ne bay ci say weewu tànk mënuñu nekk fii nag ah, di dem ci géej gi ci gaal yi dem di sonn ñëw bu ñu ba jëlee jël yëpp importé yow ci nga bokk yow sénégalais waaw comme niñ ko waxee rek gannaaw bañ jógee ci mbay si tey mbay moo ñu dalal waaye bi ñu paree ci moom daf ñu boole ki nga xamante ni mooy xaritam wala collègue am sax ci biir port bi ah macha allah dañ koy bàyyi rek mu daal di nuyoo ndax même liggéey bi la suma juumul. waaw man Youssou laa tudd Youssou Thiam waaw ñun ñoo nekk fii quoi si yoof waaw mbay sama rakk la sama rakk la man maa ko man ak moom ñoo nekk fii di liggéey waaw liggéey bi daal rafetal nañ ko nag instant ay fruits de mer rek lépp a am na fi waaw moom la ñuy exploité fii di di jaay. waaw liggéey bi yëpp rafet bagage rafet la ñuy jaay léegi moo tax ba ñu kiiyee ma ne ko waa ool yi ñu xam nga ñu wan lu ñuy jaay xam nga yoof am na am na fi am na ay fruits de mer am na lépp daal maanaam waaw bagage gis ngeen ko seerul fii lépp lu bees la ñuy jaay waaw lépp day doon day nice. ay prix fixe la wala. non waaw am na yoo xam ne prix fixe la am na yoo xam ne da ngay ñëw ñu waxaale même crevette beeg yooyu yëpp am na fi. waaw parce que revêt bi am na bu 3000 cent jëm kaw ça dépend nu mu gën a ngandee nu mu gën a magee rek ak prix am quoi noonu la demee waaw. Euh, liggéey bi lan moo lan moo la ci dugal. waaw liggéey bi nag man fii fii man yoof dama ñëw fekk gars yi fii amuñ amuñ benn liggéey kenn jaayu fi crevette man maa ñëw investir xam nga ne man kat fii war naa fee mën a exposer crevette xam nga parce que gars yi dañ ko fiy laaj ak yooyu yëpp fruits de mer waaw man maa ko njëkk jaay fii si yoof waaw loolu moom mën naa ko dugal yoof moo tax les clients yaa ngi ñëw dematuñ ay kermel ak yëpp yëpp fii la ñuy ñëw waaw ñun nga xam ne côté bi lañ dëkkee daal côté fii la ñuy ñëw jëndee si bagage yëpp fii lañ koy jëndee si waaw. waaw kàddu gu mujj. di leen gërëm rek di leen sant di leen ñaanal seen tele bi dem ba doon ay tele tele xam nga lu ngeen si mébét daal yàlla defal leen ko waaw ñun nag suñuy suñ ñun moom xam nga jaaykat moom ku ko siiwee rek la bëgg waaw te defal ngeen ñu loolu ñu ngi leen. yéen a yéen yéen ci loolu la ñuy dox te yéen ñoo far. waaw te ñun suñu affaire seeru te mën naa la jox tamit suñ mën naa joxe sama numéro. joxe sa numéro waaw xam nga comme suñu affaire seerut too ñëwee dañ la defal xéwal. waaw sama numéro mu ngi mu ngi doon 77 739 37 29 77 739 37 29 wala 76 481 10 94 boo ñëwee fii daal dañ la defal xéwal waaw dañ la jaay bagage yu rafet yu bees tax yi nga xam ne day dund lañ lay jaay. waaw soo ñëwee fii sax di nga xam ne fii lu préféré lañ fi jaay lu bees lañ fi jaay waaw numéro bi 77 739 37 29 waaw mu ngi tudd nag euh, société mu ngi tudd Almedina poissonnerie Almedina waaw poissonnerie Almedina waaw bee mooy almaxtom bi mooy poissonnerie Almedina benn la rek waaw lépp benn la <laughs> ñoom ñëpp daa mel ni ay talibé cheikh lañ ñëpp ay talibé cheikh lañ ok jaajëf ñu leen di jëfal bu baax a baax mel na ne ñoom ñëpp waa d'accord bég nañu di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi teewlu li lañ fi nekkee fësal li nga xamante ni moom moo nekk produit yi tey na ma la ko waxee dañu fa wàcc fi nga xamante ni moom mooy quai de pêche Seydina Limamou macha allah file ci Yoff poissonnerie Al Maktoum ak waa poissonnerie Al Medina te naan leen jaru ngeen di si sonn di ci déplacé wu nam leen ko waxee numéro baa ngi noonu woote leen ci bu a baax dañuy def livraison à domicile kon baax baax bi fii la cant ngërëm ñeen na leen ba beneen yoon allah